alhamdulilah su fekkee yàlla na lépp lakk yàlla na lépp lakk yàlla bu gën a baax. sonal ñu rek faslun lii day teqale ay wax mooy wax ji jàll ak wax ji ñu dëgmal bokkuñu faslun muy nekk ci arab néeg moom ak morom ja naam niir waaw yajuz dagan na ixraaju dahabi génne wurus anil waraqi ci xaalis xob waaw waraqi waaye yajuz dagan na ixraajul waraqi génne xaalis xob anil dahabi ci wurus mooy yow ay or nga am nga continué ñu nekk cinq cent mille dinar nga xool cinq cent mille dinar valeur am ñaata la ci xaalis nga génne xaalis jox ko ay nit ndax bëri na ñoo xamante ni or dara na sama rek xaalis moom la jëm waaw léegi nag bu fekkente ni aussi yow xaalis nga yor xaalis nga am su boo continué ke bu nekk trois cent milliards nga war a génne asaka bëri na de trois cent millions milliards daa bëri trop trois cent millions nga war a génne asaka mu ne bu la neexee valeur bi nga ginnaaw bi nga xamee ñaata nga war a génne asaka loolu nga si génne ko en or moom la dagan na am nañu bëri xaalis keroog am na ku ñu wax ku génne asaka sept milliards sept milliards nit génne asaka asaka bi ñu génne sept milliards Yërim Sow doomu doomu Alim Sow sept milliards Yërim Sow waaw doomu Alim Sow bu sey doon
donc mu génne nii sept milliards après.
benn waaye sama benn xarit la kuy liggéey ko bon dafa liggéey ak ñoom quoi parce que moom moom ko wax.
kooku ñaata war a am xaalis.
kenn da ko xam kay kaan giijal rek dara la na lool tabarakallah ku mu ko jox ah xool ma ko de ka bëri na daal nee na wata ji bu war na niyatu zakat niyatu zakati yéene azaka wa tafriqatuha ak teqale ka bil mawdii ci bërëb ba allazi ba nga xam ne wajabat war na fii te moom waa ji jël na azakaam ñoom rek wa dañuy zakat bi an yanwa anna allazi aataahu zakat maalahu fa in ukriha ala ixraajiha an jaahu mayatun mati bi kasi waa tajidu sarqatun qadran zakat min maa yashaa ay def ñaari niyatin walakin xam wata ji war di war na niyatu zakat yéene azaka lu important la mooy am naa sama alal maa ngi war a génne sept milliards alal waaye mu jël sept milliards mu jël un benn milliard mayal ko jël beneen milliard waaw kay ma ñëw ma ñëw ma xëy si fekk ñu sàcc ci exemple la fekk ñu sàcc ci trois milliards trois milliards yooyu dem même su fekkente ne damaa dajale woon asaka ji teg ne lii mooy asaka ji même su ma ko beroon sax ñu fekk ñu sàcc ci trois milliards trois milliards yooyu noonu du asaka de ndax li ko fi jëlee du du du du jaraaf yu ko jël du mën maa ne am gén yéenewuma ci génne asaka ji yéene ji àndul ak àndul ak nekkul xam nga dañ kaa sàcc waaw damay damay lu ko remplacé yi ci alal yi nga koy joxe xam nga
mais nag bu boobaa ci maanaam li def ci loolu ngay génn asaka bi non dañu non da ngay da ngay da ngay da ngay xam nga xam nga instant kii rek chiffre ngay génne li ñu sàcc ci alal dem na li ñu def nga daal di ne léegi amatuma neuf cent vingt cinq milliards neuf cent vingt deux milliards la am ndax fas ñu trois milliards mu jël neuf cent vingt deux milliards ñaata si war ma calculer ko daal di génne loolu léegi mooy mooy mooy mooy li fi jëlee ak affaire yi daal li ko fi jëlee mooy na nekk dama yéene naa génne àll xam nga même fekkente ne seen borom ñu ñëw jël ko sax ñu ñëw ki ko ki ko sàcc ki ko jël ba ko ko aajowoo la sax affaire yooyu mais déedéet da ngaa war a yéene génne àll yéene bi lu important la fi mu war a wata jibu la wax dana wax yéete zakaat yéene àll waaye wa tafriqatuha teq teqale ko teqale ko bil mawdi yaay allazi wajaba fii wajabat fii loolu aayoo tafriqatuha wal maali mawdi al milki wal maali alal ji naa ko moom ay ay nag la ay nag yu bari mais Belgique laa ko am Belgique laa ko am léegi yooyu noonu laa ko mën a expliqué man bëgguma mu nduroo ak masal bi suuf explication bi exemple bi nga jëm léegi وجعله يدعو فيه وهو موضع الملك والمال موضع, موضع المالك والمال waaw loolu garaaw dina ma ci génne maa ngi dëkk fii di dund fii ak ay nit sama alal nekk Belgique mu ne nag léegi dagan na dagan na alal jàng fii alal jàng fii ak man alal jàng fii ak man léegi dagan na ma jël ko yóbbu ko jox ko ñoo xamante ni Belgique lañ nekk nee na forcé wuñ ma fi ma dëkk ma jox avec yi ñi ma dëkkal forcé wuñ ma loolu léegi xoolal lu tax ma ne bu bu ma mënduroo ak bi ak bi ak ak ak bi stop parce que walaay dagam naqaluhaa toxal ko an hu wëris boobu bërëb booba avec fi mu nekk illaa yakuna nday bu dafa nekk mawdi'un loolu dafa am ba neexee loolu dafa nekk mawdi'un bërëb aaxara beneen bi fi moom fuqaraa bii nekk na ci fuqaraa aw ay ñu ñàkk achet bi ñoo xam ne ñoo gën a tar i'daaman ak ñàkk waaye bul kat bul jël azaka bi fi nga nekk supposons tool la dëkk yi nga dëkkal am nañu ñàkk nga bàyyi fi ñàkk ñi di ko jox ñeneen ñi ñàkk lu dul ne ñooñu nga ko yóbbu dañ ko gën a aajowoo lool lool lool mais bu ko ñeneen gën a aajowoo waa dëkk sàngam ñoo gën a ñàkk dëkk bi parce que dëkk bi am na ñett tool te ñaar ñoo doon joxe seen azaka fii lañ koy fii lañ ko joxe seen paas lañ ko joxe fii lañ ko joxe bërëb dëkk sàngam amul tool ñoom dañ tawlewul affaire yi ñu yóbbu ko ne loolu moom dana war a nekk si te sax moo gën fa innahu kooku waaw yoxtaa day joxe min naa si moom fi mawdi al wujubi ci bërëb bi nga xamante ni fa la waree fa demee ni amul bu fekkee bu fekkee am na feneen bu gën a ñàkk ñu yóbbu fa bu dee amul nag mu bàyyi ko fii wañu xalu dana toxal ak tarwaa li ci gën a bëri li yaa daam pour nit ñi problème ñàkk rek na ñàkk rek rek rek rek war a waral loolu bul ne bu bul xool leneen lu dul gën a ñàkk gën a aajowoo loolu laa fi dégg faslun beneen faslun wax ji jaar ak jir ñëw bokkuñu ida azala zakatu inda alxawli fa baat lam yadma lam yadma fa baat lam yadma ida azala azala sa bi xaw nañu firi waaye waaye ndem ndem yemb nag waaye ndem ndem ndem alal yi nekk na fi ba xam nga mi ngi fi existé na mënees na kaa jàpp ajra am na indal xawli fas fas admi fas fas admi am nga possibilité daja xam sa alal xam ko xam nga nu toll yooyu noonu mais ay nag la xam nga leen ginnaaw bu mu amee at wala alal ji nekk banque la lépp xam nga nu toll wala bu dee mbay la tamit bay nga ba eggal génn teqale nga dugub bi ak mbool yi yooyu dajee leen xëy ba mu def nga ko ay saako ba mu xam nga bisu bëri wala pare na mi ngi ne waaye fa daawaat mu daal di sànku dem nga kër ga jël fas yi pour ñëw yeb dugub bi yóbbu lakk jaaral la ginnaaw wala sa alal ji xaalis sa sàcc nañ ko wala jiig li nag yi reeree woon moo leen rey ñun ñëpp ñu dee fa daaxaat la wax alal ji daal di sànku nan lam yadma du du du du du kii wala ko la nooy def dara yow fi mu ne dañ laa war a jox azaka am na ñu demee ñu war laa jox azaka nga dund suñu jëwal lam yadma duñ la ko du du war waa ji du warlu lam yadma du warlu duñ ko ne ah yi lijjanti ko du warlu waaye wa in azalaha inda al xawli la wax inda al xawli parce que ak jamono bi nga xamante ni fi nga war a génne asaka rek su la yàqu waaye wa in azalaha su fekkente ne dakaa dajale dakaa dajale da ko génne waaye loolu baadal xawli la gannaaw at bi nga mooy fa la ñu waxoon sànq démb xawlan kaamilan na ma su ma tee at na nga génne ci bis bi ma ne le cinq la woon août daaw le cinq août ren bu jotee génneel asaka bu ko génnee démb ndax bu ko génnee démb matul am na peut-être benn dërëm boo xamante ne naroon na si yokk diggante tay ak démb muy bénéfice boo ko bàyyee ba suba ya téye nga alal jàmbur de un jour ñëpp daga ma lii nag comme tay jii mooy le cinq nga dajale alal ji ñu sàcc ko tay le cinq doo doo fay waaye boo bàyyee ba mu passé le six mu door yàqu waaw kooku damina baax dal xaw li gën a am damina te mooy gis fii sax wa in yow man bi ayaamin la wax bi ayaamin ci ay fan quelques jours quoi gis nga dèjà waxul ak semaine waxul mois bi ayaamin la wax donc ay fan te ayaamin te ayaamin un la commencé un jour la mu ne yaa naa saa xaw jaam qiha min gayri mujrim عند مفرد فأشبه من الله من يحدث من أقربها وبعد أن بعد عنده إن عدل بعدها وجبت عليه هذا يقول لك وضع لا لا وضع إذا عند الحول لا قبل وضع المال يزنيه وإن عزلها léegi su ko dajalee baatu asala bi summa baa topp sànku nañ léegi nee na asluha saanu alal bi qabla ixraajiha la njëkk mu koy génne cosaan alal bi moo moo yàqu xam nga saanu alal
cosaanu alal bi waaw kon bu amoon tool waaw tool ba yàqu alal bi ma yàquwul mais tool bi ma yàqu bon bëgguma dégg loolu leneen leneen kii li ma xamante ne boutique par exemple boutique wala lu gën a simple mooy xaalis ba déposé banque trois cent cinquante mille nga déposé di ci liggéey léegi xam nga bi ci nga déposé le cinq août daaw diggante bi yaa ngi ci liggéey yaa ngi ci liggéey yaa ngi ko sept cent mille ba doublé woon ba doublé woon yokku na trois cent cinquante mille nag yi nga dénkaan woon njëkk moom moo yàqu moom moo réer waaw léegi mu nekk wala xar yi soixante dix xar yi nga amoon léegi mu nekk cent soixante dix xar soixante dix mille nga yàqu nga dee ak lu maa yi bon boo nee tool tool ak li nga joxe fii bokkuñu quoi ak tool ak lu maa mais dama bëggoon xam wax ne li li nga xam ne li nga xam ne moom mooy jur waaleykum salaam waaw waaw yéen a Sidi coonee rek waaw xam dafa génnoon kañ naka coonee tool bi alhamdulilah jàmm alhamdulilah incha allah jërëjëf
fa innahu kooku yadfa'uha da koy joxe li arba biha daa ci ana zakat nga xaar moo xaar nga afata téere yi jàngale ko dara leeru téere bi لمستحقها ومعلوم فليس له أن يفترض أن يفترض إذا لم يكن له لنفسه فإنه يدفعها لأربع بها sama war ko na jar nañ xasan de gëm naa ko tey gaaw ma ko woon bu yàgg mais léegi gëm naa ko loxo na jar nañ xasan duñ ko wokk la yii da yomb anga da yàpp ba dimbali ma ne soo paree yi nit ñi nga sutuñ am dañ gën démb bu moor bi moom bu ñu def ak moor boobu moom c'est vraiment très intéressant amoon na fula quoi bu ko supprimer mais lii nii normalement xanaa booy dugg day ci ma dégg lii nga wax lii xanaa boo nga supprimer sax suñu droit rek wala képp supprimer sax da ngay jaar parle li arba bi xaa nan nañ xay bénéfice rëpp xon la rëpp xon la waaw waaw li arba bi xaa ñeel en tout cas ñeel non waaw bokk baab bi ñeel la fa des waaw wax la fa des alal ji yokk na bu baax a baax léegi sànku ci bis bi waaye ay fan après la sànku mooy ba nga ko war a génnee génnewuloo ko waaye nag léegi rasumal bi bopp alal ji mooy sànku mooy yàqu mi ngi mel ne kii bu doon boutique la rek capital ba moom moo moom moom la moom moo yàqu moom moo moom moo sànku moo réer wala mooy en tout cas ba façon yàqu mu yàqu quoi mais li fa des nekk benn kii nga xam ni ginnaaw après ginnaaw nga xam am loolu ngay inventaire génn ci alal génn ci azaka xam nga téere bi jàngalewul azaka kuy azaka azaka kuy azaka kuy jaay téere bi dé- démb jànguñu ko mais azaka azaka dañ koy limité ci trois ci trois kii daan ne azakay xaalis azakay jur ak azakay mbéy mais azaka daanaka benn bu nekk ak azakam ndax démb ni ñu ko jàngee woon xam nga azaka azakay boutique bu mu amul nisaab
azakay boutique azakay kuy jaay non xaalis bi dañuy nisaab inventaire ngay def xaalis yeeg produit yi kees gi kees gi produit yi yëpp li nga affaire yi nga def lépp daal di daal daal daal di daal di daal di diviser certes moo ko azu azu keke noonu lañ ko processus boobu la ñu topp quoi mooy un vingt un un dizaine bi un vingt cinq bi un quarante cinq bi noonu waaye du tee bon waaw c'est très important daal produit yi fa nekk Yaay am fa am fa un an da nga def seen inventaire bu bu amee un bu bu da nga da ngaa daaw ba ren rek commencé nga tey bis bi nga ubbi commencé jaay da nga koy noter bis boobu déwén normalement ci jour bi nga war a def inventaire daal di génne asaka bu fekkente ne diggante def nga yeneen inventaire nag trois mois soit six mois am na ñu loolu parce que suñu liggéey day am lu muy soxla day bëgg day am lu muy wala pour dundee ko pour yóbbu ay këram par exemple affaire yooyu wala dañu war a xam situation bitig bi est-ce que ça progresse est-ce que xam nga pour ba xam gën a accélérer njaay mi wala gën a bàyyi leble bi wala xam ba xam personne war nañ ko yokk ak yooyu war nañ changer affaire yooyu dans ce cas bu dee ay inventaire ci diggante bi mais inventaire yooyu da si génne asaka inventaire bi nga xam ne si génne asaka mooy bu daaw bi bi bi représenté at mi boobu rek si ngay génne asaka hum exact exact exact waaw bu ñu ko defee waaw xo- xool kañ la ñu disponible ak yooyu li war a am rek moom lañ mën a xam li war a am moom li war a am moom mooy bis le cinq août ba le cinq août li war a am moo xam mois wala nga def wala mois tubaab en tout cas li war a am moom mooy at mi nga xam ne il s'arrange à ce que ñu trouver un dimanche wala un jour no war na nga xam ne jaay bi du bëri wala xaw ma lu ñu def le plus souvent moom loolu la gars yi def am yoo xam ne le premier janvier pour lañu la ñuy inventé toujours am benn grand frère ñu nekkoon Dakar le premier janvier bi ñu ko liggéey moom mooy benn jour bi ñu liggéey si at mi à à à part dimanche léegi chaque le premier janvier mooy seen jour bi ñu inventé da nga war a jaay wala war a jaay ah bon je sais pas am na yoo xamante ne un inventaire jaay yu ko yàq bu leen teree ci inventaire comme par exemple bu dee boutique la ñuy inventaire bu ñu egsee rek egsi nañ rek xam nañ kees yi ñaata ma fi nekk produit bi dañuy commencé gauche jëm droit seen inventaire bi yàgg quoi gis naa quoi bi bi ko ki ñu inventaire boo xamante ne nii kenn tëjee boutique bi ñu ngi jaay ñu ngi inventaire egsi na xam na la ci kees bi bu kenn jëndee après ap- ap- après li- bon li ñu jënd après du laal du du du dugg ci inventaire bi waaw xam nañ ci kees bi ba pare foo foo foo ko foo ko na boor mu commencé di jaay kiy jënd su dee bo su dee li muy jënd fekk na ñu cal ñu inventaire ko ba pare waaw ñu jaay dugal ci kees bi amul problème bu fekkee ne fekk na inventaire bi diñ ko di diñ ko jaay dugal ko ci kees bi dañ koy noter rek soit bi ñu leen ñu compter comme ça cinq cinq benn produit cinq cinq minutes suñu jë suñ fekk inventaire dafa excès bu fa mu tenir ko en compte rek mais ça dépend ci inventaire nag ko xam rek na bañ a bon na bañ a dugg si na ba- na ba- na bañ a yàq inventaire am daal mais loolu liggéey ñu inventaire ñoom ñoo ko gën a xam yow daanaka jaay ko jaay daanaka jaay janvier lañ ko war a def wala premier kii 31 décembre wala premier janvier
at lañ wax di donc léegi kan comptabilité 31 janvier lañ 31 décembre lañ ci
non léegi boo ko defee à minuit la vingt trois entre vingt trois et trente ba minuit cinq ba minuit trente dugg si yeneen kii
nekk ñaari ñaari yëpp wa man maata ku dee na qabla ixraaji zakaati lu njëkk mi génne azaka fekk matoon na at aw aw saa wala mu dénkaane woon bihaa ci moom mu ne sama alal ji defal leen si diw ñu sa nangam fa innaha ko loolu kat tuuxas dañ koy jël min raasi maalihi ci bopp alal ja ci bopp alal ja lañ koy jël xam nga mooy avant at ma rek le 5 août daaw tey la tey la dee tey la war a génne asaka lépp loo xamante ni waroon nañ ko lépp neewoon na nañ ko ko si defal dañ naan li mu amoon avant le 5 août daaw la diggante 5 août daaw ba 5 août ren duñ si jëlagum lenn ndax loolu ay alal jàmbur daf cee nekk dañ naan li mu amoon avant le 5 août daaw mooy 500 mille yi mu fa nekk yi mu dem déposé woon banque la ca doolee ko duñ ko laal moom ci 500 mille yi lu mu ne nañ ko si joxe waaw dañ ko siy jéem a joxe dañ ko siy joxe mais parce que ñaari alal jàmbur ñoo fi nekk alal miskin yi fuqaraa yi ñi ñooy jox asaka ak alal way doon yi loolu la loolu la tax way saxabu sopp nañ nag ah fii sadaqati tatawwu ay ci saraxe coobare rek saraxe boo xamante ne ni moom da ngay bàyyi fii ne ak sirru la waaye wo parenthèse bi ka rek waaye wa sopp wa sorfuwaa soppi ko jox ko lil aqaari bi ñeel jële naa ya bu dee asaka xoolal ci gën a aajowoo fi yàlla wax xoolal faqiir bi ngeen di ko jox faqiir bi su su paree nga xool miskin yi su paree nga teg ci amil alayha su paree su paree teg ci mu àllif qulubum su paree teg ci iqaab su paree sabilullah su paree ibnu sabil sëf naa benn sax sëf naa benn soxla li fa mu tàggee noonu amil alayha mu àllif qulubum sur kaab yi kaab yi ne sabilullah ibnu sabil ba mu doon dañu xeex léegi suivre ñooñu kenn par kenn bu fekkente ne azaka nag sarax sarax la nag du azaka nee na na nga njëkki ci la gën a jege bu dee sarax la nga dëkk nga leen nga dëkk sa papa moom ak yaay moom te da nga leen war a dundal ñu sarax waru leen da nga war a jox parce que nga may leen mu wër nga sarax leen am na différence wal jiiraan ak dëkkandoo ya wa tata akkaru nee na dana fet dili ko nag moom sarax saraxu coobee fii chahru ramadan si weeru koor jeexul zakatu fitri la zakatu fitri la de waaw ma jeexal buntu zakat kas doon day joxe ay wax bi
bañ ko koy